may mun santal naa la gërëm naa la maa ngi si yoon bi mhm. maa ngi ñëw dem di la ñaanal nag mhm. yow nag yow yaa xam li nga bugg mhm. yàlla na la ko sunu borom defal yaa xam dëgg-dëgg ndax lii nga ma jox mënoon na la si bañ a fekk yaa ko moom jasineer yére dàlla kaalis kañ na si yow wax dëgg yàlla xëj na si yow waaye su ma xamoon tamit ni dama fiy fekk kii duma ma ñëw kon ma toog fi ma nekkoon ndax xam nga lu tax ñëwuma fi pour ñëw pour wayaanaale la de déedéet moom dafa génne kër gi sama ngor mayuma ma toog ma jël sama bagage ñëw waaye su ma xamoon te bi muy jóge ba dafa wax njukku Balla la jëm su waxoon fii la jëm kër may mun a man ma ndus bañ a ñëw waaye nag moom xawma ko woon waaye sant naa la gërëm naa la yaa xam li nga bugg yal na la ko sunu borom defal amiin yaa rabbal gis nga mooy li waxoon sànq gis nga àdduna rafetal rek muñ rek moo am solo nit fu mu muntu nekk ci kaw suuf na muñ ndax dangay ngay nekk ak sa waajur nga jot ak moom da muñ mm. nga nekk ak sa jabar nga jot ak moom da mm. muñ la boo muñee foo dem di fu fa mën a nekk fu jàmm amul dara mënu fa am wallaay wane bi ngay ñëw da ngaa indi sa saak ñëw toog léegi yaa ngi ne di tàggoo di ñibbi moo tax bu man bu ma muñu woon lii yëpp du ci fekk muñ moo am solo wallaay mënoon naa ñëw nga ñëw nga katal ma de mënoon naa ñëw nga katal ma ci kër gi ah. te boo ma katalee tam damay kat même bu fekkee ni sama rakk nga mhm. boo ma katalee ci kër gi du ma mën a bouger damay taxaw jéngu rek bàyyi rek nga katal ma duma la xatal mukk te duma ko def parce que yow sama deret nga il faut ngay comprendre loolu yow sama deret nga duma la xatal kër gi yaa ko moom li ma la jox yaa ko moom kontaan naa de li nga moom rek laa la jox kontaan naa de maa ngi si yaa ngi dem moom kontaan naa. demee nga góor nga muñ àdduna muñ la dégg nga àdduna muñ la ku la tooñ jéggal ko te yàlla tax bu la tooñee sax jéggal waxuma la bu la tooñ. sama xol moo sedd moo tax ma kontaan ci yow yaa nga bugg la ko suñu borom defal. amiin yaa nga am balaa tabaski bi di yàlla nga am ci kar. amiin bu ma bu ma amee doom bu gër yow laay tuddee xam nga ne yow yaay sama rakk man awma ku dul yow. aw ma ku yow dégg xanaa nga góor góorlu rek boo demee nga muñ nga yegg si jàmm fekk leen si jàmm nga bàyyi sa gannaaw jàmm. moom nag waxoon na ni naa ko xaar waaye munu ma ko xaar. waaw doo ko ngeen ànd comme yéen bokk ngeen jëm moom duggkatu bis la te man oto yu gaaw yi laay dugg das mu yaay yi hmm. gaaw yi yooyu laay dugg moom bis lay dugg moo tax munu ma ko xaar. mën nga koo xaare comme yéen bokk yoon ngeen ànd benn yoon moo gën a rafet aduna rafetal la dugukatu biis yaru yàlla yàlla defal la Mamadou amiin mu am xaalis amiin bi dox ba mu tabaxal la R moyen trois R moyen cinq yàlla mun naa ko yàlla mun naa mu defal la R moyen dix R moyen cinq ba mu joxaale la sa wàll parce que yaay nijaayam nijaay ndey la ñaanal ma tamit ma am ku ma nopp balaa tamit ndax mu mun am doom tamit gis sama takk ndeer di nga ñëw di soobee yàlla dina ñëw dara dara yàqamti lépp a ñëw bu soobee yàlla jërëjëf waaw kay ay sama jooy yëpp jooy ngi sell yow amul looy def jël mbaay nga xam ni njukku balla séeréer la dafa ñëw foofu ngay jël ki nga bokkal di ko sacrifier waaye yaa xam sa këré ngoog yéen a xam lu ngeen neex def leen du ma ñëwaat Dakar sax wax ma la bay ñëw seen kër naan maa ngi siy woor woor bu métti rek laa fi woor wooruma fi dara loo xamante ne bii nii am naa si salaam. macha allah ah waay Maymuna. Mbaye. ah maa ngi cee yoon wa. ah yow it boo jëm. ah dem. yoroo nga noonu di tàggoo. ah ah. ah yéen moom ni ngeen ma wér tey di dem na. ay ay waay waay waay ah fi ne nii de moom. ay waay pare nañu moom. déedéet kay. maana wax la mel noonu. ah li ngeen ma wéeteel de. ah adduna lah ngi nii. ndeysaan. adduna lah ngi nii. waaw waaw ndeysaan. adduna lépp lah ay waxtaan ay rafet eh, adduna lépp dañ koy waxtaanee rek. wallaay dëgg la wallaay. coow lu bari léeg. waaw siisante beeg. xol mhm. yu bon yeeg. Mhm. yooyu lu fi waay mën a def. Mhm. fi ni nii tey dañ koy nettali. wallaay la gan yomb naa mu ñëw. wallaay yomb naa mu waaye nag maymuna. ba sant naa la. ndeysaan jërëjëf. fi ni jaar bari na. ku waaye bu ñëpp meloon ni yow. ah Sénégal am jàmm. ndeysaan da dafa am nit ñoo xam te ni bëgguñu nit ñi euh, di. di di di di nekk ci jàmm. waaye ku nekk ci jàmm euh, ku bëgg ñu nekk ci jàmm nga. alhamdulilah waaw. ah kontaan naa ci yow de. waaw ndey neex na. Mm, macha gi bari na. macha allah dañuy nalaw ba doyal. na xoolal sama lex yi fi ne boo ma gisee xam ne bi may ñëw ak léegi. changement am na ah. maa ngi nii di belli. wallaay belli nga maa ngi nii di belli. damay naloo normal. bu mooy yeewoo dégg nga ma fekk sama ndéego ndéego nga nekk ñu duñu respecté gaa bari nañu sikk saa waay bëri na sikk bari naa ay yenn kii moo ma si daan yóbbaale waaye nag ku baax nga ma di la xamal na daal mhm. foo jublu yàlla na fa yoola jublu kontaan naa trop xaalis bi bari na tis yi jasneer yi bari na fi ne nii sama saag baa ngi nii ma duy ventilateur yi lépp nga jënd si jaada gaa ngi nii nga jox ma moom daal kontaan naa moom daal mbaay waaw sant naa la gërëm naa gis nga àdduna muñ la. Mhm. fépp foo nekk ci kaw suuf boo muñul doo fa mën a nekk. dëgg la lu la nuyoo rek li di naa lu la nuyoo rek tàggu na la. lu tàggu lu nuyoo tàggoo na lu nuyoo tàggoo na yow tamit ñoo bokk benn dëkk. dëgg la mu dem ba mel ni mboq dëgg la sama mboq la. dëgg la ma nekk nit ku la naw lool. dëgg la waaw ku la jox cër lool. xam naa loolu de. yaa ngi dégg ñaari baat yoo wax. fii ne yoro sama bokk nga waaye mbay yow moom. wallaay la bu ma doon jàpp yow laay jàpp. kër gi fii loo fi amul rek. jàppal ni fekkoo ko fi. dëgg la mais lépp loo fekk yaay boroom dëgg la waaw kontaan naa kon nag xam naa ni. ah defal ñu ñaan rek. maa waroon a ñaan sax waaye tey <laughs> yaay def ñaan ndax nag gën day am ay bagages yoo xamante ni ah dafa am yoon. sa waaye nag. dégg naa ko muy jéem a jaay seytaane di jooy. dëgguwul ci moom ay kàcc ci jooy rongañ kën kenn du ko mën a génne. lim di day day tuur rek muy bés bési di jooy naan xëy di jooy te jooy. Ah. kooku du jooy di. jooy li mu fi def yëpp ci réew mi naan da jooy waaye moo ko fekkee jox Balla dinaa ko ñuus ba mu xam ne lépp dëgg la maa ko man maa ko doole ko ci yëfi wuyu rek yow daal kontaan naa ci yow jublu yàlla na fa yàlla jublu jërë ngeen jëf jërë jëf xaaral dem balaa leere kii wax jaawul ak sama yaram ku lu ma lay xaaree wuy ma te ma sama matériel yi. matériel ban. sama teel na sama kii bi waay waaye teel na sama kii ma defar matériel bi waay. lu ma lay teel waay na ku ne téye bagage am nga naan ma sama matériel waay waay ginnaaw ay jàmm. lan la ah yow mënuñu bokk yoon parce que yow biis ngay jël. yow lay jal man du ma jël biis. looy jël war gaynde. daas mi yaay yi laay jël. man war gaynde laay jël nañ jël war gaynde yi. moo gën a gaaw ni sim xaala nga egg njof yor fële. déedéet jëli ma ay war gaynde foo ma war kii de daas mi yaay yi laay jël. daas mi yaay. waaw waaw yow euh, sa euh, kii xam nga. paas paas cinq mille la. ndax kan. te yow ay paas deux mille nga. déedéet yàlla tere. paas war gaynde. bu ñu ko jëlee simila ak saa la ñu egg dégg nga maam jox ko Balla billaay wallaay. waaw léegi de ma parce que man damay jaar. léegi yow ñaata bu may jaar. restaurant. bu may jaar waaw nañ demaale ci restaurant bi añaale. waaw yaa ngi xëy ginnaaw jàmm ay dañ leen doon lëfal rek lu la jox ci xaalis ci paas. lijjanti sa jog-jog. am nga am nga ventilateur. may na la kii. waaw te doo dem bàyyi ma man ma dem sama yoon man man ku ne dem yoonam. man lii dama koy jaay wanteer lii dara duma ko yóbbu ñu xubaal fee ngay jaar waaw demal kon xaaral ma wuy ma waay saw kaay ñu dem ma fii dafa am ay booy bandi demal rek ku ne demal sa yoon demal rek ku ne demal sa yoon waay baal ma ak baal naa ak yàlla yàlla may ñu julli si jàmm ak salaam yàlla bu ñu gisee waat si jàmm ak salaam ma dund ku ne dund dundam loolu nga dem sa yoon ma dem sama yoon ndaw si moom am na jëkër wala amul jëkkër lu si sa yoon la moo si sa yoon damay laaj la moo si sa yoon laaj daa ay est-ce que nekk nañ ci kër bi gis nga góor bu dugg fi gis nga fi góor gisuma fi góor de kii du jigéenu caga yaagal di du def ay affaire yu caga di bu fekkee ni tamit man xawma ku yoom lan lay lijjantee ku am jëkkër yow may ma jàmm mu naan ma ko yow yow da ngay bëgg a soof nag quoi jubóowee nga indiwaat ay rancunier quoi man yaa ko teree man sama jubóo yow yaa ko teree nekk jubóo sori kan waay yow nga kan feste xam nga bàllu naa la ak ba pare dañuy commencé waat yeneen ak léegi